di sant suñu ñaari wayjur yéena ko doon laaj dikk na maire Binta Faye ak Fadal sant yàlla tey ji ngi fii ci Cheikh Kacha ngir teraanga ji nga xam ne moom lañ doon def muy collectif pour jox ko maire bin Faye ñu sama chéri la ko ñëpp ak man bu demee siyaare ji Cheikh ba ñëw dama koy yónnee warugar nag ñu daal di koy jël ko nag mu sey si nag maire Binta nuyu fekk naa la. maa ngi li may njëkk def mooy ñaan yàlla lafal la cat te yàlla sàmm la ni nga bégalee sénégalais yi béggal ko sax ak ñu nekkul sénégalais muy seen njéglaay ndax bu fi réew bi duggee àdduna ñoo bég àdduna ñoo lay ñaanal tey lan ngay wax ñi la doon ñaanal. bi reprendre ko di la ñaanal loo leen di ñaanal. ngi sant ngi sant di ñu gërëm di ñaanal si bés si Moustapha. li tax ma taxaw fii tey yàlla si Moustapha ah yéen ma doon suivi ma yéen ñëpp àddina bépp lay ñaanal tey ba ma mën a wax suma xol dafa fees wante ñaanal naa ñëpp ñaanal sëñ Moustapha ak capitaine am ak njabootam ak koo xam ni bëgg nga ko ndax lii yàlla ak moom la yàlla ak moom la te bu ma amul woon ndigal it xaalis bee bari bari du ma moom laa doon xaar mu joxe ndigal sëñ Moustapha mii moom laa doon xaar mu jox ndigal dama koy ñaanal dama ko ñaanal woon sa kursi ba ñaanal ka sa këram altine ñaan googu day continuer ah yéen ñëpp ah ku yor loo ñaanal Fadel sa séeri bi wala war a takk après nag man. yow paas yow. Fadel ko ko séeri dama ah. lay ñaanal nga mariage ma nu ma dem Pikine. amin tey tey eh, lan ngay ñaanal Dakar Buzz tey bi nga xam ne moo la wane ba àdduna bépp gis la di la ñaanal. waaw Dakar bi maa ngi ñaan ñaanal ñoom tam gudd fan ak wér ñuy yàgg fi yàlla aar ña barke Cheikh Tidiane Sy Maktoum mi jur Serigne Moustapha ak Cheikh Tidiane moomu moom laa war a fekki si jàmm ak salaam. jërëjëf kon ñu bàyyi la ñu dugg ñu jox la teraanga ji nga xam ne mooy billet bi nga war a seeti jee Cheikh Tidiane Chérif.